mbokki ami internet Jël bi TV ak sunu People TV saa su ne comme ni ñu koy defee ak yéen di leen seetali ñi nga xam ne ñoom ñooy jeunes lutteurs yi di leen jëli comme niñ koy defee saa su tey ñu ñëwaat fi nga xamante ni moom mooy benn baraak ñëw fekk fi xale bi nga xam ne ndaanaan la muy Bouba Bouba buñ ko tuddee kenn du ko laajte ndax wane na ay preuve ci làmb tey ñu seet ko bëgg a séq ak moom waxtaanu làmb waaye mu war bëre ci journée boo xam ne journée bu mag la ci diggante Ada ak Zoss muy journée boo xam ne structure bi ko tëgg structure bu am doole la waaye structure la boo xam ne saa duggee ci làmb bu kalee ay journée ñëpp dañuy dar seen gémmiñ ndax neex tey nag ñu ñëw seet si Bouba Bouba war a dajeek ak xale boobu nga xam ne moom mooy la joor nekk foofu ci école de lutte Balla Gaye ñu bàyyi Bouba mu nuyoo ak mbokki ami internet yi nga xam ne ñoom ñoo ko jël si tey mbër maa ngi lay nuyu di la bëggee di bàyyi nga nuyoo mbokki ami internet. waaw bisimilah. ginnaaw gi ñu sant yàlla. julli suñu sant suñuy ñaari waajur. di ñu jàppale yëpp di sant gaa yëpp. waaw di sant ñu yëpp. waaw di sant ñoom buur ñoom laay ñoom seex bàyyi ñu kenn ñoom paap ñoom saa ñoom laay di nuyu ñëpp daal di bëggee ñëpp waaw di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di nga nuyu ñëpp di nga beggee ñëpp mais tey Bouba ñëw war a bëree ci journée boo xam ne structure bi ko tëgg muy jàmbaar production avant ñuy ñëw ci làmb ji te structure boobu ba nga dalee bëree ba léegi est-ce que structure bu mel noonu boo amee doole noonu mus na la tëgg non non ba ma dalee bëre bële maa ngi doog a journée boo xamante ne journée bu mag la. journée bu ñëpp di coow. waaw bu ñëpp di bàyyi xel tamit. waaw te combat bi tamit ñu bëri ñu ngi may wax. journée bii nii sa journée la. ndax ñu ko tëgg nii waa Jàmbaar production. dañoo jóg pour jàppale ndaw ñi. waaw di leen wax nag. lu ñu bëgg ak lu ñuy séen si làmb ji ak lu ñu si bëgg yàlla na ko yàlla defaral. waaw di leen wax nag nañ ma xaar maa ngi ñëw man tamit su ma ñëwee su ma si génnee dañu xam ban booy. waaw mooy loolu dinañ xam booy bi bu baax si bis baax lañ may xam. waaw mais tey ñoom ñu ngi tëgg ay xale tey ñu tànn ay xale boole la ci tey yow journée bi nga koy bëree tey engagement bi nga daan jël ci yeneen journée est que engagement boobu ngay jël ci journée bi. waaw journée bii nii xam naa fu mu may yóbbu làmb ji nii. fu may yóbbu xam naa ko bu baax a baax a baax. fan la la mën a yóbbu. fu ma mën a yóbbu si làmb bari na. waaw su génnee si combat bi ñu ma mën a bëreel bari na fu ma mun a yóbbu bari na. waaw te yàlla def na nag ñu ngi koy waaj bu baax a baax ak samay maag samay mbokk ñu ngi koy pare bu baax a baax a baax a baax waaw. dañuy ñëw ci adversaire bi est-ce que xam nga adversaire bi nga jël bu baax. adversaire bi non la yow koy dégg rek. da nga ko umpale de. ndax ma ko sax xam consuma ko sax. waaw Lajoor dama koy dégg nii rek. waaw mais est laajul woon nga xam. non Lajoor mooy loolu kooku méttiwul jarul xam. méttiwul. xam nga Lat Dior njar la de. waaw combat moom Lat Dior xam lu mu def daanu moom la ñëw taxaw rek. mais pourquoi choix bi nga jël Lat Dior. waaw Lat xam nga rek. waaw sama staff rek ñoo ko jël man bañ ma nee lajoor Dior sax man mooy loolu. ah billaa wallaa yow xoolal lajoor Dior Lat Dior xoolal ñu ma bëreel ak Lat Dior mu bëreel. waaw mais tey yow ñi nga bëreel yow ndaanaan nga mais tey ñi ñi nga xam ne ñooy technicien làmb yi tey bu ñu décortiquer xool sa combat ak Lat Dior gars yi dañu Lat Dior moo la sàcc poids xaw ma nag doole mais dañ ne moo la ëpp poids. di wax guy rëy na lool waaye moo dul këriñ. waaw kooku pëndax la. pëndax la pëndax la. man lu ma leer lu may entraîné moom du ko entraîné lu may liggéey du ko liggéey lu may daj ci coono instant nii moom du ko daj waaw. mais Lajoor Lajoor Lajoor moom dana moo la doole moola la mën nee na yow taxoo koo jug bëtam du ci yow la ko teg. Lajoor kooku pataala nga la biir rek la moo ëpp pataala waaw biir rek la moo ëpp te su taxawee dëggal ko jàpp làmb ju jeex waaw lajoor kooku nee na moom ma bu doole moo moo mën ba bis ba ba saa suñ sumee ba taxaw digg arène nationale maa moom ah, bu kenn arrière nañ taxaw suul tànk yi ñu xeex billaa waa dama koy duma mais lajoor day xeex de billaa dama koy duma yow ñeme nga samp jaaga ak lajoor waaw lajoor tapel la ñeme wut xeex billaa billaa dama koy cotiser nee naa xamul dara mënul dara moo gën a niil si làmb ji mais ñi xaar combat bu neex si yéen ñaar bu neex bu dak sama combat mak Abu Ndiasse bu mhm. ko dak si mak mom ci gaw nak mu taxaw deugal bopam mhm. ñame jam-jam bi mhm. wa su ko ñame rek dina neex xawma nak mu ragal ko combat yu gaay dañ koy xaar mak mom suñu digënde mak mom nag dama jangal ko gëre mais boobaa tamit lila sa gaay tamit xam nga mafia bi tok ni xam nga ngay bëglante ak ñom isanewul loolu moo tax ngay wax lu la neex mais jor xam nga ne la non du ko bi la du dossier du dossier jor billaay wallaay doo dossier xam nga lu ma lay ñaan lajool maanaam si bis baa nga taxaw nga dëggal sa bopp ñu xeex lajool suñu xeexee ma duma la suñ bëree ma jàngal la bëre loo indi fekk fa lu lu lu la yéem billaay wallaay wa taalaay waaw ndax taxaw dëggal sa bopp rek mais ñu gis bu baax combat bi comme ni nga ko waxee sànq combat bi da nga ko fonk bi ñu la contacté danga ne woon da ngay dem entraînement ñu gis ni tey bis la boo xam ne bisu mawlud la ñu ci gàmmu gi mais yow yaa ngi boot sa sac bëgg dem entraîner tay ñu gis bis bi ni nga ko bis bi mo ni tollu wala adversaire bi mo ni tollu non non bis bi xam nga rek li jaaxaluma bis mënu reuy ba dépassé adversaire bi la. du adversaire bi du dara. manam boy la rek. mais tay ñepp noppalu mais yow da nga boot sa sac di entraîner. non xam nga rek billaay boy ñoo mayul jamm rek. tout temps yi billaay fu ma teud fa lañ may fekk yema neema nañ dem. ñom sengeur dañuy ñew taxaw buntu gaale fajar gi nak sengeur heures du matin la ñuy jóg yéem taxaw toog buntu gaale. Mhm. ngoon maa bi tamit noonu loolu moo tax billaa wala taala combat yi combat booyi la xale yi xale yi laa koy bëreel billaa waa benn baraat tal bu xonk malika kër Moussa ñoom ñoo moom combat bii nii ndax combat bi da leen a jaral te leen jaral jaral na ma lu ko raw du wax nag suñ tëddee na seen xel dal ki du dossier kii méttiwul hmm. waaw kii kóopu la mais tey combat bi fan la la mën a yóbbu boo ci amee ndam waaw combat bi su ma si amee ma mën a yóbbu mooy loolu après dañ ba dem. fan la baaba baaba baaba ñu génn si baaba génn kii bi rek la wit bi. waaw le huit bi moom la neuf lay comprendre. le neuf lay comprendre wala le dix. mu le le huit. waaw le dix ba tey rek. Ah. billaahi lay comprendre. laaj bu baax. ñu ngi koy xaar bi sa diggante ak la joon ndax ñu ngi xaar loolu nee lu ko raw billaay pare nañ ko combat bii nii lañ gën a ko boobu waaw combat bi dañoo xam fu ñuy yóbbu mais buuba ak suñ buuba isa xam nga ne lajoor benn affaire mi ngi ci moom lajoor day xeex day bëre te bu ngeen jàppantee day bëre bëre suuf est ce que buuba dama ko gën la gën yaa tax bëre la joor foofu suñu bëree ma jàngal ko bëre moom na ñëw bëre su ñëwee bëre ma jàngal ko bëre su xeexee ma duma ko man soxla ma da bëre man dama bëgg ñu xeex ba amateur yi jóg ba taxaw ba kontaan ñu doog a song amateur yi moom loolu lay xaar ci yéen ak supporters man loolu laa pare pour combat bu neex combat bu neex xaw ma nag moom parce que tamit combat yi ñu génn saison bi seetlu nañ ci ay yenn combat ci seeni ay morom dañuy bëre mais après combat bi day muju sovantal parce que bu béré ben 5 minutes ben 10 minutes bu ñëwaatee ku ci nekk day démé calcul day téyé sa bopp ba seen combat du mel non du mel non mom su yoboo na paré na dem paré combat bi na dem contact gi na béré dé dina béré dina la ah. Lajoor mi ngi nii jàkkaarloo yow. la Lajoor di nga béré di nga xeex. Hmm? su fekkee luñ la dé luñ la wax amul dé nax nañ la dé billa wala dama nga entraîné. Hmm? moom day taxaw dëggal boppam xeex ak yow xeex bu métti. xam na loolu. billaa su taxawee dëggal boppam moo duma ko loolu laa bëgg. ngir yàlla yërënte bi Lat Dior jëfee loolu jëfee loolu ñu taxaw ci digg géegu xeex xeex bu met maa yow. mais moom moom moom lu tax mu ne amoo doole. nee na doole ko <laughs> amoo doole. amoo doole waaw daa reer ba suur rek moo tax mu taxaw wax loolu. waaw daa reer ba suur rek moo tax mu toog nee aw ma doole. ban xar kanam nga koy wan ba taxaw ne buubaa amul doole ci ma daan. <laughs> moom daa kontaan rek billaa walaay daa kontaan moom lu mu yaakaar moo amul. lan la yaakaar. lu mu yaakaar. lu mu yaakaar luñ ko dee. lan lañ ko dee. non luñ ko dee moom xam na ko. ah lan la. bilaa luñ ko dee lan la. <laughs> ah luñ ko dee. liñ ko dee. waaw bilaa walaawul. ah barki yàlla. mais ñeme na la de moom. Lajor. waaw bilaa walaataa balu kanam laa koy dóor ma la tubaab bi. Ah. barki yàlla. balu kanam balu kanam laa koy dóor moom tubaab bee ko jaaxaloon. yaa illee la la wala daa daw ba tubaab doo ko balu ginnaaw man man dañuy. jaakaar man nañu jaakaarloo ma dóor ko balu kanam mu wàcc. billaa wala ñu ngi lay dégg de. balu kanam laa koy dóor. ah billaa na taxaw dëggal boppam. mais lan lañuy xaar ci boobaa mobilisation bi jour si. waaw jour si. waaw tuwoo ñëpp. billaa waa di wax na gone yëpp pare nañ. Hmm. barki yàlla le huit rek la ñuy xaar. waaw le huit la xaar. ñu jaxase arène nationale ñu jaxase arène nationale di woo waa Tivaouane Peulh waa Jaxaay Kër Massar ñàgg. Hmm. baa ñu kenn waa carrière bi. Hmm. waa Yëmbal. benn baraag buun Caaroy Kër Massar baa ñu kenn waa montagne. billaa wala ñëpp a laa pare laamu ji waa Arekar tal bu xonk sama koñ manko mhm. aydu mhm. bisaab bi jokkoo diisoo mhm. bàyyi ñu kenn di woo ñëpp billaay walaay kontaan naa ci jóobeen bi waaw di sant nag ñoom jëwrin moor day sonn sama combat bu baax a baax a baax di ko sant bu baax di sant jëwrin di sant kii ni zoro day jàpp si combat bi da si sonn di sant buur buur séeri caat waaw day jàpp si combat yi moom tamit da bu baax a di nuyu faa nag waaw faa bu ndaw faa ndaw keroog avant ma fogaa di ma ñaanal ah. waaw di ma ñaanal ndam bilaa wala noonu la demee nag ah, ah, waaw di woo ñëpp nag waaw di di woo laay siika waaw laay siika day sonn suñu combat jàpp bu baax a baax a baax waaw laay moom kenn la si ñun waaw sam fan si club bi bi ñoom Omar Ndiaye laat waaw ñoom làmp waaw baaw ñu kenn waaw ñoom Sora Malick waaw ñoom ñëpp ñoom laaj ñoom Issa Tera mm. waaw fan ci club buubaa bi yëpp maa ngi bëggee ñëpp ñoom papa président Zam macha allah tali karo bi baa ñu kenn macha allah waaw du ñëpp bëgg naa ci yow waaw ñoom ñoom Cheikh Fall dañuy sonn sama combat laay waaw ba ñoom ñëpp maa leen woo di woo nag ñoom Ndiaga ferrailleur ferrailleur yi bàyyi ñu kenn waa Pàkk bi ñoom Pouta mm-hmm. ñoom Modou ñoom Kang mafia feeraay bi daal ñëpp rek waaw bëggee nañ ñëpp lim juum ku lim juum noonu la demee di leen woo nag la huit le huit la di leen wax ñu pare la huit la huit suñu huit la dañuy dem jël ko ñoo ko fa am hmm. waaw di sant na sama ménageur Abdou Naar Abdou Naar waaw noonu la demee woon moom Bouba ni ma leen ko waxee waxtaan bi day neex saa su ne dañuy waxtaan ak ñoom waaye ni ma leen ko waxee woon ci ndorteel gi xale la ndaanaan la bëre na fekk ay champion du ñu lim mais ku ne xam ne ne Bouba ndaanaan la te mbër la boo gisee ñu jël ko boole ko Lat Dior combat bobu combat bu ñëpp di xaar la jour le arène nationale combat bu neex lay doon ndax ñoom ñaari xalé lañ yu am jom waye ñaari xalé lañ yo xamanteni buñ day neex dañuy mobiliser buñ ñëwé di rendez-vous le 8 Inshallah arène nationale Inshallah di